salaamaaleykum mbokk yi nga xam ne yéen a ngi topp 24actu.com am nañu mbégte àndaat ak yéen ci jotaay bi nga xam ne taaru Sénégal la ñu ko tuddee euh, taaru Sénégal nag nekk jotaay boo xam ne nag euh, mën nañu wax ni rédaction bu 24actu moom moo leen koy proposé ñu ciy ànd ak yéen euh, di waxtaanee lépp loo xam ne nag soxal na askan bi waaye lépp loo xam ne nag mën naa taaral suñu réew mi nga xam ne nag moo di Sénégal yàgg nañ di ko wax heure bu ñu toogee fii senegal yàgg naa taaru loole tax na nag lépp loo xam ne jàpp nañu ne bu ñu ko waxtaanee rek mu jur njariñ ñu fas yéene ci ànd ak ci jotaay bii nga xam ne moom la ñu tuddee taaru Sénégal bi la jàll nag euh, jotaay bi jàll euh, jotoon nañu waxtaane ci lépp loo xam ne jëm na ci yàqu-yàqu jikko yi tubaab naan ko la dégradation des mars mu nekk loo xam ne nag yaatu na lool ponk la yoo xam ne jotoon nañ fee développé yu bari bii yoon nag fa yéene nañu koo eggale euh, ngir dugg ci yeneen ponk yi ngir loole nag xam ngeen ne du ma ci wet benn yoon bi la jotaay dama ci ànd ak ñi nga xam ne ñoom la ñu tuddee ay borom esprit libre ñun sax yàgg nañoo wax loolu muy soxna Astou Sylla Kébé euh, soxna Astou maa ngi lay nuyu ma bàyyi la yow tamit nga nuyoo euh, ñii seetaan taaru Sénégal. Hmm. Hmm. voilà asu nuyoo bi am solo am na solo lool ñu ngi lay sant baax di la gërëm di am mbégte bu baax nag euh, ngir sekkaat ak yow euh, jotaay bi nga xam ne moom la ñu tuddee euh, taaru Sénégal soxna maam Fatou Kébé temps yi moom gis nañ la ci jotaayu ndaanaa ni vraiment noppaluwoo maa ngi lay masawu coono te di la encourager di la féliciter salaamaaleykum soxna maam faatu Mm. voilà mu mel ni taaru Sénégal bee jàll comme ni ma ko waxee rek euh, ci bi may tàmbali doon nañu waxtaanee euh, jikko yàq yi mais danga ngaa dawoon man moo ma jaaxal dama laa gisul da ngaa jékki-jékki rek euh, daw mbaa da ngaa ragal koor wala koor gee tiital ans mm-hmm. voilà assu euh, taaru Sénégal bi jàll waxoon nañ ko dañ doon waxtaan ci lépp loo xam ne jëm na ci jikko yu yàqu yi yaakaaroon naa ne am na ponk yu bëri yoo xam ne jotoon nañ ko développé ñu àndoon ci ak euh, soxna Maguette Mbacke ak Mahamadan Tall ak Thiam euh, donc jotoon nañ développé yu bëri tey nag ñu fas yéene ko eggale ngir song yeneen ponk ndax am na yeneen i jotaay yoo xam ne ñi ngi ñuy xaar donc comme ni ma ko waxee woon keroog ci émission bi rek donte président nee na fast track maanaam ñu ñu ñu baral yëf yi yaakaar naa ne Sénégal léegi ba mu koy wax fekk na sénégalais yi nekk ci fast track gu metti ndax chargeur sax newoon naa fi booy jënd fast chargeur ngay jënd chargeur bu gën a gaaw astu donc tey nag ñu fas yéene waxtaan euh, continuer euh, débat bi alors tey dama bëgg nag ku ñu gën a xuus ci euh, jikko yu yàqu yi nga xam ne léeg-léeg keroog wax nañ ci ndaw ñi waaye nag ci mag ñi tey donc fan lañuy ñuy tàmbalee encore une fois moo xati ko mm-hmm. Mm-hmm. Du jeex. xàmmee te te te doo ci xam mais ngi gis lépp nag Astou Ndoye ah. Mm-hmm. Mm-hmm. voilà euh, asu loolu daf ñuy may ñu xuus bu baax ci euh, ci waxtaan bi parce que dañu gis ne que ni yenn euh, écoles yi loolu moom yaakaar naa ne nit ñu bëri gisal nañ ko seen bopp am na ay mag ñoo xam ne dañuy ñëw gaare seen oto ba élèves yi wàccee ñu këf ci élèves yi yóbbu leen yaa ma gën a xam am ci yuñ nekk donc koo xam ne da nga war a joxe exemple koo xam ne da nga war a nekk kilifa est-ce que loolu jàpp nga ne nag fi mu toll nii ak mi fi mu toll mm-hmm. Mm-hmm. Hmm. Hmm. ah bon hmm. asta xam naa dinaa ci dikk Mame Fatou Kébé jamono yàqu na ba toll foofu jamono bu ñu demee ba xale yi euh, mag ñi di rasaatu ci xale yu ndaw ñi xale yi tamit euh, duñ ko bañ donc yaakaar naa kon toll na fu yéeme soxna Mame Fatou mm voilà. Mm-hmm. Mm-hmm. nekk ro war a nekk sax kaay soxna maam Fatou. Mm-hmm. non duñ ko def sax xale yi di ci teg seen bët waaye xale yi lañ koy defanteel léegi. Mm-hmm. Mm-hmm. est-ce que mm-hmm. daf ko yóbbu wala sax mu yóbbu wala sax mu fekk ko muy doog a wàcc mu yóbbaale ko ci otoom ba ya mhm mhm voilà loolu moom lu am la pour dëggal li nga wax rek yaakaar naa ne am ay audio yu bëri yoo xam ne jot na fay génn ci ay mag yoo xam ne lépp ci wax jooju lay tàmbalee comme noonu nga ko waxee. Mhm. Mhm. Mhm. xale ba tamit wow bët lool de moom tamit. Mm. Vai lá, Mamparo. njiital njiital yu ñaaw yi donc as waxoon nañ ko ci responsabilisé yi daanaka responsabilité yi daanaka dañ ko partage parce que euh, xale bu sañee euh, wow bët ci kanamu mag donte mag ma def na lépp lu ji njaak mag ma ca la ndax moom mi waroon jox exemple comme ni ñu ko waxee mais nag parents yi dañoo démissionné ndax boo yoree xale euh, muy jàngi xamul heure amoo xamoo heure bu muy wàcc emplois du temps xamoo ci dara emploi du temps sax xale bi mën na la wax loo xam ne du noonu mais xam heure bu xamoo bu muy dugg xamoo heure bu muy génn loolu est-ce que tamit doy ndax bëri na ñu nga xam ne ñi ngi tàggoo jàngi te nañ ñu baal ma. Mm. Mm. nga mm. teg bët mu mu nekkul mu mu nekkul mu nekkul lu doy waar. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm. ndeysaan lii c'est grave. Mm. d'accord. Mm-hmm. mu nekk lu doy waar. Mm-hmm. mënatoo koo bàyyi mu nekk. Mm-hmm. kon ba léegi biir kër ga biir kër gi <laughs> Mm, voilà xam naa dinañ ci dikkaat léegi maam Fatou euh, as wax na léegi point bu am solo laal na ko muy biir kër yi euh, li fiy xew ndax des fois sax euh, xale nekk ci kër ñu ko fay yarlu wala wala jànk ba wala leneen jikko yu dina yóbbee benn xale bu góor bu fa nekk kalaasug seexu naa goo xam ne xëyut gontut bu xëyee day dem entraînement bu wala bu ngoonee mu entraînement nekk ci yeneen yi day yóbbu ba kooke ñu am fuñ jaar te bu boobaa bëri na ci lu nga xam ne dañ koy nëpp nëppal ci kër yi donc loolu tamit jikko yàqu nag tamit xanaa loolu romb ko. Hmm. Hmm. Hmm. inceste loolu la tubaab tuddee um Mm. Mm. mais mais mais loolu maam Fatou est-ce que gisoo ne tamit tubaab bi ñoo ñu xas ba yàq parce que bu njëkk euh, sunu parents yi euh, ak noo man di toll fekk say parent ngi dund dangayam kilifa bu njëkk. luñ naan la defal nga bàyyi mais léegi euh, tool nañ foo xam ne bu njëkk xale mën naa def dara nga corriger ko nga dóor ko ci mbedd mi léegi yow ñemeetoo dóor euh, doomu maam faatu ci mbedd mi donc loolu est-ce que tamit tubaab yi dugg ñu wàll ñu seen i jikko. Hmm. duñ suñu hmm. am nañ ay mag ñu baax ñu mën a roy. mm

Mhm. mu nekk lu doy waar mu nekk lu mu nekk lu doy waar asu mu mel ni am na loo ci bëgg a sànni euh, ci fi am Fatou tolloon rek euh, ci euh, développement yi.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 de baax mu nekk lu doy waar ñu avancé bu baax a baax rek astu ci jikko yàqu yi euh, gis nañu ni euh, léegi jamono dafa changé parce que bu ñu xoolee euh, série yi nga xam ne ñoom ñoom la ñuy proposé donc loolu tamit bokk na ci li nga xam ne day yàq jikko yi ndax bu njëkk ay théâtre la yoo xam ne la ñu daan am yoo xam ne ñi ko doon ñi ko doon def fii la ñu fii la ñuy jógee man bu njëkk dama daan gis ay nit di toog di seetaan théâtre ba yàgg ñu jooy donc mu leer la ne am na sentiment bu nga xam ne yëg nañ ko ci théâtre bi yeneen série yoo xam ne euh, bon nekkut suñu suñu suñu suñu suñu culture bokkut suñu aada bokkut ci suñu cosaan te sénégalais yi di ko seetaan bu baax a baax non seulement loolu mais ñi nga xam ne ñooy ñooy ñooy produire série yi euh, mu xam ñu xam ne lii fierté la woon ci ñun ñu ne ah lii kat série yu bees yi léegi ñun euh, ci ñi koy def fii la ñu bàyyeekoo Sénégal mais ñooñu ñi ñu war a jàngal ñooñu war a jàngal xale yi parce que dañuy wax ne borom xam-xam bu mag day wax ne ku la yaral ku la indil téléfilm muy série yi yaral la say doom donc ñi war a yar doom ñi muy série yi nga xam ne ay sénégalais yi ñoo koy def ñoo ñoo koy def donc dafay wane beneen jàngale ci tubaab bi donc maanaam dafay des lu baree baree bari te xale yi dañ koy suivre bu baax a baax a baax duñ tudd benn benn série nag. Mhm. Mhm. Mhm. Ah, lu tax. mais est-ce que changement ba as war na tax ñu ñuy àndil yoo xam ne vraiment un hmm. hmm. hmm. mais asu tamit xam nga tamit euh, euh, foofu problème day am mais asu foofu problème day xam nga lu tax non at waaw waaw waaw ok pare nañ ci. ok mais aso problème bi fi muy nekk est-ce que ñëpp am nañ maturité bi maanaam xelu gis na lii kat a ah, film la kat nangam ak nangam jël ke lu baax xëy na su may wax xale yi laay gën a jublu xale yi nga xam ne ñoom ñoo gën a neex a nax wala ñoom ñi nga xam ne dañu comprendre exact li xew euh, xale yooyu nag dañuy roy de. Mhm. ah bon. Mhm. est-ce que xale. Mhm. mais loolu mooy xale yu të rek voilà xale moom bu demee bala muy def hmm. waaw hmm. Hmm. voilà maam Fatou série yi am na loo ci bëgg a sànni muy série yi nga xam ne dañ ñu koy proposé donc waroon a waroon ñoo jox suñu suñu suñu suñu gëdd mais aussi euh, di ñu jëggaani la nekk ca tubaab yi. wallaahi te te ñun xamuñu nuñ koy utiliser. Mhm. Mhm. Mhm. exemple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 day day bari lool voilà asu euh, xam naa <laughs> mm-hmm, mm-hmm, c'est très important mm-hmm. loolu nag mooy jafe-jafe bi mais nag ñun problème bi ñuy am euh, Sëñ Cheikh Fall Mbaor sunu xarit <laughs> ah wallaay <laughs> ah wax na wallahi wallahi asu Mm-hmm. wallaay te te jikko mooy lépp asu jikko jikko jikko mooy lépp de ah. Mm-hmm. Mm-hmm. Mhm, mu nekk lu doy waar mm mm mbër ngi di gën a yaatu tubaab yi di ñu gën a euh, di ñu gën a wàll ñoom liñ yor li ñu yor donc parce que voilà parce que boo xoolee bu njëkk film yi am na ci yoo xam ne euh, ñaari yoon lañ la ko daan tegal benn bi dañ koy teg bu boori timis bi lañ koy teg donc xam nañ ne heure boobu heure julli la euh, bu timis bi jàllee fajar gi lañ la ko daan suba teel gi yi jàlloon yëpp nga xam ne doomu aadama daanaka timis yu ci nga koy ci nga koy ci nga koy yàlla fajar gi nga war a jàkkaarloog moom donc mu nekk loo xam ne léegi nag dafa am beneen forme boo xam ne ci lañ ko andi mu nekk lu doy waar xam naa ne jotaay bi neex na te bu ñu ko toppee mën nañ ko gën a yaatal gën nañ ko yaatal bu baax a baax parce que dégradation des mœurs ji ko yàq moom bu ñu ko waxee yaakaar naa ne yaatu na lool lool lool lool ñu ko doon def fii ba deux ans ci ay émission yaakaar naa ne liñ ci war wax du jeex mais tout façon euh, dañuy obligé parce que waxtu bi jot na bu ko defee rek ñu daal di tàggoo te di leen euh, xamal ne taaru Sénégal day continuer ci kàttanu yàlla ak ci yeneen itam soxna maam Fatou looy tàggoo. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. dëgg la. macha allah. Mhm. <laughs> sa xarit sa goro sa xarit la wala sa goro avant ñuy jeexal sa xarit la wala sa goro. léegi kon du sa goro xanaa wala du sa goro. Hmm. bu bëggee nekk sa goro daal. waaw baax na <laughs> ñu ngi koy sant ba andi ko gërëm soxna maam Fatou moom seexu naa moom yaakaar naa ne moom as la yàlla xam waa doo fi sori donc euh, kon asu café jotaay bi taaru Sénégal. voilà surtout. dinañ ko ci développé te dara sax nag waaw tàmbalee guñ dara lii nuyoo bi la avant góob bi la rek dañuy testé rek waaw ci kanam tuuti. waaw ci kanam tuuti di ngeen gis lu ngeen mën sa gis te incha allahu rabi man maa leen promettre ne euh, voilà. ak dégg am wallaay wallaay ak ñu armée li sax dañ cay sàcc jërëjëf Astou xam ma dikk ñi nga xam ne ñoo ñuy seetaan mbokk internet yi di leen xamal ne nag taaru Sénégal incha allahu rabbi ci émission yi di ñëw am na surprise yu yaatu yoo xam ne dencal nañ leen ko duñ leen wax lépp rek ndax surprise moom yaakaar naa buñ leen ko waxatee rek nekkatu ko donc li ma leen mën a wax daal mooy taaru Sénégal ci kanam tuuti ci émission yi nga xam ne moo ci topp di ngeen ci gis ay surprise yu bëri bëri bëri yoo xam ne yéen yéen a ko moom donc ñun nag suñu rôle mooy lii donc nekkuñu fii comme niñ koy waxee rek ay donneur de leçon yaakaar naa ne euh, àdduna moom ba mu sosoo ba léegi ñi nga xam ne ku ci nekk ak terewul bi ngay def yonent bi yàlla ñaata yonent la la la yónnee euh, doomu aadama yi dëgër bopp euh, lu nekk ñu def ko waaye teewul ñi nga xam ne ñooy waxkat yi di wax yaakaar naa thème yu mel nii ajaratu déggan chimère wax na ba dem euh, oustaz Tayib Socé mi ngi wax ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ñi nga xam ne ñoo nekk ci réewum oustaz yi heure bu ñu xëyee di wax loolu nag niñ koy comprendre mooy ku ci nekk ak mission bi nga xam ne moom la la yàlla dénk donc bu duñu taxaw ne rek àdduna moom na kenn mënatu ci dara rek dañuy croiser les cee jëlee njariñ moo tax rek ñu daal di koy jël daal di koy andi fii euh, ngir fas yéene ci ànd ak yéen comme ni ma leen koy waxee rek euh, taaru Sénégal donc ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di leen wax ne jotaay bi incha allahu rabbi dinañu ko wéyal euh, ci balaa yàgg incha allahu rabbi ma andoon ci nag ak suma jigéen ñu ñaawul ñi ak muy soxna Astou la ak soxna Mame Fatou Kébé ni mu koy faral di waxee rek ay esprit libre lañu te damay faral di wax ne cere cere ku sëb la hmm? fa ñu àndee dafa yàgg nekkul ne cin la wala bool ba moo leen boole rek ah cere naa ànd bu yàgg la ñu ngi leen di sant baax di leen gërëm sant Cheikhouna Ndiaye gorom maam Fatou Kébé wala sax xaritu maam Fatou Kébé mi nga xam ne nag moo nekkoon ci eh, caméra bi gërëm bu baax ki nga xam ne nag moom moo di eh, Khady moo nga xam ne eh, <laughs> sama xuloo waale moom un lay sol un moom mooy jàpp ci montage bi ñu ngi koy sant baax di ko gërëm di ko jox dig daje ci yeneen i jotaayu taaru Sénégal di leen jox dig daje incha allahu rabbi Sénégal taaru Sénégal